الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع صحابته الكرام ومن والاهم إلى يوم القيامة أيها المشاهدون الكرام نحييكم بالتحية الإسلامية wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit ju tedd ñi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu xaq bu baax di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal yàlla boole jéggal yàlla defal nu jàmm biir ak biti sutura adduna ak àllaaxira ko yàlla boole defal di nuyu tabaarakallahu borom kër gi sëriñ Abdou Salam Mbaye tabaarakallahu di ko nuyu bu baax di nuyu sëriñ soxna ami paypal directrice di nuyu tabarakallahu sëriñ amadou tabarakallahu caméraman ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa kër gi yëpp di ziar ñëpp di baalu xaq di ñaani yàlla jàmmagu sax dàkk ya nan ko yàlla dafal si darajay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax julli tabaarakallahu fu mu toll war na di ñaan jàmm ndax jàmm rek tabaarakallahu la jullit war a xajoo ndax jàmm mooy xéewal goo xamante ni du dagg mukk jàmm tabaarakallahu kenn rek moo xamul valeuru jàmm ku xamul valeuru jàmm mooy ku am jàmm waaye ku am jàmm tabaarakallahu xamul valeuru jàmm ki ko amul moo xam lan mooy valeuru jàmm mbokk yi jàmm lu jara ñaan la salaamun qawlan min rabbi rahim salaamun ala nuuhin inna kadalika najil muhsinin mbokk yi jàmm dafa jarañaan ñaan jàmm alal la joo xamante ni wallahi alal ju dul jeex la jàmm ku ko am rek tabarakallahu da dund dunda goo xamante ni xayaatan tayiba dunda gu tey te neex mbokk yi tey ji seen émission saytu sa diine dellusi si na si bisug ajjuma di leen ziar bu baax di waxtaan ak yéen ci jàmm te jàmm la jullit gu nekk war a wootee ndax yàlla subhaanahu wa taala wax na ci alquran ni ñi nga xamante ni ñooy jullit ñi bu leen ñi nga xamante ni du ñu ay jullit bu leen wooxee ci leneen lan lañ leen di wax dañ leen di wax ñun suñu kuddu daal lu mu ràcce mooy jàmm ñun daal jàmman lan suñu kuddu ràcc kon nag tabaarakallahu tey nag ñu woote ci jàmm fàttali nit ñi ak jàmmoo ndax jàmmoo mooy li nga xamante ni moo gën ndax tabaarakallahu wér wér mbaxane la goo xamante ni boroom wér du ko gis mukk ku wére di dong koy gis kon na tabaarakallaahu lu jara bàyyi xel la wér daal kenn xamu ko kenn xamul valeur wér lu dul ku wére di am nag valeur am ku ñàkk dong ko xam waaye valeur jàmm ku ñàkk jàmm ko xam te it am jàmm bu mu la tee ñaan yàlla dolli jàmm ja ndax gis nañu ci jamono gi ñu toll ak sunu réew mi di Sénégal tabaarakallahu bakkan yi rot di ñaan sunu borom yan nanu dajanteeg yërmandeeg sunu borom ak njéggalam bakkan yi rot bëri na te loolu du jàmm ndax bu gaa yi woote woon jàmm bakkan yi du nu rotee nii waaye ñàkk woote jàmm tax bakkan yi di rotee nii kon di ñaan bokk jullit ñi nanu woote jàmm te xam ni jàmm si ngay muccee si la sa njaboot di muccee si la sa am gi jàmm sax di muccee sa noon sax si lay muccee yéen ñëpp ngeen ànd mucc kon nag nanu woote jàmm ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na wala boo demee ci alquran sax yàlla subhanahu wa taala wax na ni taawunu ala albirri wa taqwa laa ala al ismi wal udwan taawunu ala albirri wa taqwa laa ala al ismi wal udwan yàlla subhanahu wa taala nee na na ngeen dimbalante ci lan sunu borom sunu borom ni ci njëkk ak ragal yàlla waaye bu nu dimbalante ci loo xamante ni ay bàkkaar lak ay tooñ déedéet jullit du def noonu jullit day dimbale mbokk jullitam ci lu baax bañ di dimbalante ci loo xamante ni ay tooñ la tabaarakallahu nin ko waxee woon rek gis ñi nga xamante ni ñoo ngi manifesté wu am na lu leen métti ñu xam nit noo seulement que de lii métti nañu te war nañu génn ñaxtu te am ñu am ci duraakat ndax léeg-léeg kilifa mën na toog fa mu toog du yëg liy metti askanam foog askanam génn wax ko ñu war a génn ñaxtu lu leen metti am nañ ci droit waaye itam ñu bàyyi xel bu nu demee ba génn bu naree jur ay bakkan yu rot dafa mel ne suñu génn gi dootul jàmm ndax ku ci nekk boo xooloon ni bu loolu amee bu bakkan naree rot na doon sama bakkan kenn du wax loolu kon xamal ni bu dee génn gi ku nar a fitna gu mel noonu ku nekk na nga woote ni nanu ko dox ci jàmm ak dal ak tey ndonte ne dañuy dem si benn place boo xamante ni place bu yaatu la ñu dugg fa daal di ñaxtu ñu filmer nu ñu génneenu fekkente ni dem na ba kenn mënatuñu may ñun ñu ñaxtu suñuy mbir ñu xool nun ko organiser jàmmalu jara woote la mbokk yi may li ma wax rek ku ci nekk buñ la waxee bu génn gi amee dana metti te bakkan mën na ci des ku ci nekk bu doon sa sagode wallahi buñ la waxee doo wax mukk ni sama bakkan na des déedéet doo ñaan mukk sa bakkanu doom des sa mbokk doo ñaan bakkanam des kon nag bëgg nga ñoo ñëpp mucc yéene ko ñeneen ñi des ñëpp yàlla muccal leen lu nuy ñaxtu ñu ñaxtu ko ci yar ak teggin itam. naam am na ñu koy wootee ñaxtu te ñaxtu lu leen metti waaye ban koy ñaxtu am ñu topp seen gannaaw ñoo xamante ni amaan na bokkuñu ci ñoom. ñoom ñuy def ay jiya tabaarakallahu loolu nag bul yaakaar ni yow itam da nga ciy génn déedéet bul yaakaar ni yow mi nga xamante ni yaa organiser loolu yaa yaa taxawal loolu bul yaakaar ni danga ciy génn déedéet ndax lu nekk dañ koy delloo ca cosaan ga kon loolu lu jar a bàyyi xel la jullit ñi nanu toog ñu waxtaanaat ñu xool naka nanuy saytoo suñu réew ñu bañ ko saytoo ci loo xamante ni dafay jur ay menaces ay agressions yoo xamante ni day am ci biir dëkk bi nan ko moytu te it ñu woote jàmm ndax jàmmay li gën te loolu lanu sunu borom subhanahu wa taala indin ndax yàlla de wax na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waxal jaam yi man dama am yërmande ci ñoom dama am yërmande ci ñoom xanaa xamoo ni yàlla subhanahu wa taala leeg mu nam ma loo xamante ni ab xéewal lay doon ci yow waaye ëmb ga foog mu doon nattu xéewal gu ma war a indi dañ koy ëmb te ëmb googu foog mu doon nattu te nattu googu boo ko ñaxtoo soo moytuwul mu avorté boo ma déggee deman la yàlla bu nammee indi xéewal xéewal gi day doon nattu nattu googu ëmb doon te ëmb la biir si biiram la xéewal gi nekk boo ko ñaxtoo soo moytuwul mu avorté te it amaan na yàlla nam a changé Sénégal te it nun koy ñaxtoo bu baaxul amaan na mbir mi nu yàlla nar a indil nag mu doon loo xam ne dafay avorté te bu avorté du baax yennan ci yàlla musal li ma wax nag sore na lool ku nàmm sa dégg-déggin xóotal sa dégg-déggin da nga dégg li ma wax kër goo xamante ni da nga ko nàmm tabax booy tabax kër bëggu ko defaraat ba mu rafet foog nga raser ko boo ko raser ba mu raser tabaarakallaahu si nga koy mën a tabaxaat raser bi dafay nuroog yàq fekk nag defar ma war a ñëw kon mbokk yi lépp lu mën a am rek nan ko daf ci yar ak teggin daf ko ci yar ak teggin ndax xaq yoo xamante sa mbokku jullit nga fekk bitigam nga yàq ko sa mbokku jullit fa mu doon daanee dooleem nga xañ leen ko mais lolu ngeen ni responsabilité bobu yéen yanu wulen ko mbokk yi nanu baye xel lañuy def te xamni ku ci nek yowmal qiyam yàlla sunu borom subhanahu wa taala dañu teewal ñun ñep ku ci nek mu laaj la li nga doon jëf te it yàlla buy laaj ku nek day taxaw yow kenn ku nek da nga wéetoog sunu borom ba yaakar ni xana yàlla li may laaj xana yàlla man rek la doon surveiller ci aduna wa kulluhum atihi yowmal qiyamati farda kenn ku nek da nga ñëw yàlla audité la lélé nga gis lu xewul ci jamono gis nga tabaarakallahu ba manifeste yi amee ñu toj bërëbu liggéeyukaay yi Auchan yi nu toj da ngay gis nit koo xamante ni day dem ba sa Auchan ba daal di jël saaku ceeb ya saaku dëwlin ya butéelu dëwlin ya laaw am ñoo xamante ni dañ doon commandé sax di woote téléphone naan nanga ma jëlal meew ci alalu jaamur mbokk yi xanaa du ñu xalaat lan lay def suñu biir bi biir sore na lool lan nga ci war a def ay waay la mu tuuti tuuti na lew nga jël saaku ceeb sëpp ko sa biir kër boo xamante ni yaa ngi ko jëlee ci alalu jaamur ñu sàcc ko indi ko nga jël ko di ko jox sa njaboot wuti meew ca Auchan jaamur jël ko di ko jox sa njaboot dëwlin ba jël ko di ko jox sa njaboot mbokk yi ku ci nekk war nga xalaat bis ba ngay tëddoog sa sa ndeyjoor bis ba ngay tëdd ak sa ndeyjoor dañ danga daay ak sa ndeyjoor bis ba war nga ko xalaat bis bu jara bàyyi xel la biir bi la nga ciy def wallahi war nga ko war nga ko xool te xam ni bis dana ñëw lépp loo defoon ci lu bon boo ko rëccoo rëccu ko day paase. nanu xoolaat bu baax lu ñuy def te lii ñoo ngi jàngal ak xale yi sàcc. lii bu wee xale yi daan nekk ay agresseur bu dee dëkk bi nii nañuy kaase suñu droit ak nii nañ koy defee sàcc ak agresseur dañ fi bëri te yan nañ si yàlla musal kenn ñaanu ko yàlla suñu dëkk bi Sénégal ay nit ñu baax lañu Sénégal ay exemple lañu ci yeneen réew yi. ndax sénégalais fu mu dem day bokk ci trois premières yi loolu la yàlla dogal te si jukko ju baax dañ koy xamee sénégalais jikko ju baax dañ ko am kon nanu fexe ba jikko yooyu nga xamante ni sunu maam yu baax yi sunu baay yu baax yi ñoo ngi ko doon def ñun ñu fexe ba am jikko yooyu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla daf ma yónni ngir ma defar jikko yi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla daf ma yónni pour mu defar jikko yi nanu góorgóorlu jikko yi defar te it ñu am kersu gis nga sallallahu alayhi wa sallam dafa ni al imaanu wal xayaa qurina ngëm yàlla ak kersu ñoo lëkkaloo waaye ñàkk kersu si jamono gi ñu toll ku si nekk lu la neex nga wax sa morom lu la neex nga wax sa morom te yàlla de inna allaha hayyun xaj allaha hayyun yàlla dafa bëri kersu jullit gu nekk war nga am kersu xool lu ñaaw nga bañ ko tudd lu ñaaw doo ko gis boo ko gisee nga daal di am kersu rus ndax benn nitu yàlla dafa ni ma fekkee lu bon waxuma la tudd ko de waaye ma gis lu bon mu ni moom dafay jooy ak bàkkaaram yi kañ na ko ko yàlla di jéggal ndax waa ji def lu bon amaan na bu paree ca bon lu muy def bu siggee ñaan yàlla ci njéggalam ak mbaaxam amaan na yàlla jéggal ko waaye man mi nga xamante ni bu ma jéggal woon yàlla ba pare bis bu ma gisee waa ji su ma ko xoolee dam koy xoolee daf katu lu bon bi sama xel looloo ciy nekk bàkkaar googu nga xamante ni bis bu ma xoolee waa ji amaat bàkkaar ju bees moo ma jaaxal mbokk yi nanu góorgóorlu nit mënul wax gëm naa yàlla te amul kerso te kerso ci la ngay wax ak la ngay jëf rawatina lu ñuy bind ci internet bi internet bi ñoo ngi ciy saaga ñoo ngi ciy wax wax ju bon ku ci nekk loo xamal sa moroom ci lu bon nga génne ko vidéo daf ay vidéo yoo xamante ni da nga koy génnee filmer sa mokk bokk jullit ci anam gu doy waar nga génne ko baa nga partagé ko te sawar ci lool jullit du def noonu taawunu ala al birri wa laa ala al ismi wal udwan yàlla subhanahu wa taala na nanu dimbalante ci mbaax ak njekk ak teraanga mais bu nu dimbalante ci ay bàkkaar fexe ba partage vidéo boo xamante ni ku ko xool ba audio boo xamante ku ko déglu mu doon ay musiba rek yow nga koy nga am ci fierté nga yaakaar ni vidéo ba na mu demee lu bon loolu na nga ko partagé ba fa mu àgg ak ka ca mës a déglu bàkkaar nga yàgg moom yen a koy bokk du bokk ak sa bàkkaar gu njëkk gi Amadou dégg nga ma ku daf bàkkaar nga jël bàkkaar googu lu bon loolu nga partagé ko ki nga ko partagé kooku la mu am ci bàkkaar yow dana lay bind laat bàkkaar gu noonu kooku kam ko waat yow da ngay amaat bàkkaar gu toll noonu kooku kam ka partagé waat da amaat yow atam ci bàkkaar gu toll na bàkkaaru ñeneen ñooñu te du wàññi sa bàkkaar gi dara mbokk yi nit di partagé fexeel ba partagé lu baax booy wax nga fexe ba génnee sa gémmiñ lu baax boo ko mënul nga noppi mbokk yi jamono gi ñu toll yan na yàlla dafal lu jàmm ci réew mi jàmm rek nañ fi yaakaar te ku ci nekk boo xalaatoon bu gaa yi génnee ka cay des man la baa sama rakk baa sama doom mbaa sama jarbaat billaahi kon nag kenn du génn waaye nanu xool bu nuy ñaxtu nu def ko ci anam ak yar ak teggin ku nekk am nga droit kas say droit bu nu demee ba mu nar a ëpp ay bakkan di si rot nanu taxawaat ñun ñu xool lan ñuy def nii lan la li ñuy def nii lan la ñu xool ko ñu laaj suñu bopp te it ñi nu jiite nekk suñuy njiit nanu am yërmande ci ñi ngeen jiite ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam yarhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama yërëm leen ñi ci suuf ñi ci kaw yërëm leen Seydina Muhammad la mu mujjee déclaré ak la mu mujje wax ci làmminam dafa dénkaane fonk julli juróom te it àllarba ji paas àllarba jëlee ci la woon Isra wal Miraaj sallallahu alayhi wa sallam nee na fonk leen julli juróom lam ca teg mooy ngeen yërëm ñi ngeen yilif boo nekkee kilif na nga yërëm ña nga xamante ni yaa leen yilif te yërmande rek la ñuy soxlo yal na defal dafal nu jàmm adduna ak alaxira sutura adduna ak fajal nu aajo yi si daraje Seydina Muhammad tuur fi jàmm tuur fi jàmm ba ñëpp a ci jàmm yal nañ ko yàlla defal si daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala allahi wa rahmatullahi taala wa barakatuhu góorgóorlu xam ahad di firi loo sàggan sàggan xamal lan mooy subhaana rabbiyal azim xamal lan mooy subhaana rabbiyal aala góorgóorlu ni firi la luy taaya